bisimilah. waaw ñu leen sant bu baax di leen di ñaan yàlla suñu kàddu fekk leen ci jàmm. waaw di wax ci actualité bi muy Sadio Mané moom nga xamante ni suñu joueur boobu nga xamante ni dinaa yàlla bokk na ci ñun yaakaar ci coupe du monde bi waaw faaw président yi jël responsabilité ci Sadio Mané waaw dem jëli ko Bayern mu indi ko su dikkee fii ci Touba doon ko mën a yóbbu ci conté conté yi doon ko mën a xëcc suñ ko xëccee rek dana mën a dox ndax loolu moom yàgg ci gone man ak sénégalais ab tànkam. waaw ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di yàlla suñu kàddu fekk leen jàmm waaw di wax ci actualité bi muy Sadio Mané moom nga xamante ni suñu joueur boobu nga xamante ni ginnaaw yàlla bokk na ci ñun yaakaar ci coupe du monde waaw faaw président yi jël responsabilité ci Sadio Mané waaw dem jëli ko Bayern mu indi ko su dikkee fii ci Touba doon ko mën a yóbbu ci conté conté yi doon ko mën a xëcc suñ ko xëccee rek dana mën a dox ndax loolu moom yàgg ci gone gone ak sénégalais ab tànkam